Bonjour chers amis téléspectateurs bienvenue à Sénégal7.com alhamdulilah la ñuy wax tout le temps parce que tey ñëwaat nañu feneen foo xamante ni waxoon nañ leen ko xam nga Sénégal7.com toujours day ànd ak Thiat la petite fille alors ñu ne ñu ne euh, dafa dafa tàmm di tardé. waaw dafa yàgg di tardé dañ ko muñal muñal ba sonne alors euh, question bi nga xamante ni directement moom lañ la bëgg a posé rek mooy Abba moo démissionné à la Sen TV wala dañ ko dàq à la Sen TV. Abba du ko ñuy nag. Ah. loolu moom ad waaw waaw xam nga aba nga am ko moo gën nga ñàkk ko ah. waaw donc aba du ku ñuy dàq ku réew mi bëgg mhm. ak ku bëgg réew mi ak kuy forcé boppam réew mi du benn maa démissionné mhm. donc euh, loolu moom je pense que tey aba mhm. euh, ku ci ne euh, ci sa structure wala sa entité bu nga am aba mbal ku mel ni du dañ lay faral di isapier wala man damay bañ ok bañkat koo xam ni boo xoolee aba ak moom di wax ak xam ni kii du ñu yàpp tey bu may liggéey damay liggéey su ma wàccee damaa wàcc. Euh, liggéey bi ci yoon lay tegu koo mënti doon. yow mhm. boo jigee yoon. Mhm. dama naa la da ngaa yoon. mu neex la wala mu naqari la. Mhm. donc tey abaa dañ koy mise à pied wala yooyu abaa dañ koy wax loo xam ne munu ko. abaa ne lii munuma ko. comme employé nga nag amoo droit ne lii munuma ko. liñ la wax yëpp moom ngay mën mais aw ma benn problème ak sama directeur ak sama direction. aw ma ak ñoom problème. employé comme man. la amal nu mu tudd. ah non non non du xam nga xam nga lu romb. Mhm. genre damay am benn grandeur xam ni comme. nit ki na la baalu la après nga baal ko yàlla nag moom du arrêté. day continuer di ba tey. Mhm. nit ñi ngi gis du ma ci waxaat. donc am nga ñu lay xeexal am ñu lay waxal. te may ndaw nekk ci yoon genre li ma ubbi ci ay projet moo ëpp li ma bàyyi sama ginnaaw. donc sama kanam laay xool rek dem donc euh, yooyu mooy am. Mhm. ñu wax ma lii ngay def ma du ma ko def. après ay sanction day am. Ah. léegi nag boo ma sanctionné man 15 jours. yàlla nga may dimbali ci biir yooyu ma tukkiti ma non sanction bi dañ ko wàññi une semaine fekk ma jënd billet ba pare. Mhm. donc fi egg ci WhatsApp bi lañ ma waxee dañ ko wàññi da ngay ñëwaat mënu ma ñëwaat donc nag bi ma ñëwaatul bi ma 15 jours yi jeexee ma ñëwaat lañ ma dagg temps bu bari. nag lii du ma ko nangu loolu moo indi ay mise à pied mais man liñ ma mi mise à pied bariwul de. 15 mm. fois la rek. <laughs>